Naik bu tàng na xaalis amul loo jaay du jar tabaski lañ jëm xar cher na ngi ma ànd ak nag ci ne caméraman yi le plus beau l'ami des jeunes filles muy Mouhamed Sène aja nañ dem ñu xam Lan Fal Jangan jamin ah. Ini kita kita apa dah? Ah papa ziar naa la si loo ne. bàyyi yaa ngi en direct actuellement nag yaa ngi si jàmm. yaa ngi en direct gaa yaa ngi lay seetaan àdduna ngi lay seetaan. mais lan moo lay énervé si réew mi xaalis amul tabaski ngi ñëw taxar amul. ba pare xar yi dafa cher. li ñu wax Diomaye mu dimbali ñu ak soog ñu subventionné xar yi boobu mu wàññeeku. ñëpp bëgg a tabaski bi nga doom yi. ba nga demee laajte daal xar xar dara ba bu fi yow ñaax. ñi ñi dem di la ñëw di la wax ñaata li nga. kii moom waa léegi nii defar sam bi ay deux cent cinquante deux cent quarante. deux cent cinquante. aywa dafa mel ne xartu ñëwagul xar ak xartu mel ne laaj. ba ñu pir xamul. pir xam laaj ñu la pir xam.

yow mii maa ngi yow jaarale téléphone. noonu dañuy dem uh, continuer ci kanam bu ko defee ma ànd ak uh, ki nga xamante ne mooy boo xam ne xool uh, gars lan moo leen énervé parce que yaakaar naa nga rek lay toog war a jaay da ngay jaay ci marché jaay da ngay ñëw pour jënd si maa ngi ngi yokk daa cher ndax jamono ji daa métti naa ah, naa ne ñu ko lay dal gouvernement bees yow soo ko nga def daa dagoon moom ma kii ba defaraat mu ngi noonu yaa ngi ci jàmm

tốt Don't hit me. Dale. What? Video, video, video, Thank you. saya menjaga tiang bayi dan lain-lain itu harus dirawat. No, są kombusa, kapta, kapta, uwagę, to kapta, kapta, అందరికీ పిల్ల పిల్ల కొన్ని ఇంటి దూకి రోజులు అయితే సాయం يلا يلا بينا هنقول لك دلوقتي يلا يلا مساعدة يلا بينا هنقول شاف فيكم عشان شاف ولا يوم كان التوفيق وبولد Barsi moom barsi moom naka jafe-jafe jafe lañ barsi moom saa lépp lu ko am ne moom mooy doon ay sant yàlla baax na yàlla baax na waaw amiin amiin jàppale leen bu baax Colobane nee naa la Colobane lañ ne lépp la fi jaay bëgg jaay boo bëgg Colobane lay wàcc di leen jëli ji deux intervenant Mouhamed soo ma ko permettre su fekkee daa daal la baax jaajëf borom Kolawaar. jaajëfatee léegi maa ngi ñëw léegi su ma paree xoolal ma daal bu rafet. jox ñu teere ko. yow ñëw mu ngi noonu. ba tey ñu xoolaat beneen bi seen bëggoon. boo xamante ni ko nangoo dara jaay loolu xool daal doo ko énervé. nee naa la Colobane lañ nekk tey ànd ak ki nga xamante ne moom mooy Mouhamed fa seen xool askan wi lan moo leen métti. la moo leen énervé jafe-jafe yi ñuy dund si marché bi tamit ñu daal di leen koy laaj en direct ñoom tamit ñu wax leen li nga xamante ni moom moo leen ñu wax leen li leen métti en direct ñu jox jox leen ko yéen. waaw borom moom bi man bi ma yóbbee ko ak xasin même nga guy balaa defaree moo tax. Thank you. jinde laabugo jin laabugo jin laabugo ɗuma jal jin laabugo jami andire ɗum korat woni jamen ɗa amono manko jaay ɓen jaɓe jaɓe gen ando

yàlla baax na yàlla na la yàlla sax jàppale leen bu baax a baax. kaa bi nii lay def chaque jour dañuy daal di formé nu mu baax di def waxtaan ak ñoom laaj leen lan moo leen naqar yan jafe-jafe la bu ko def ñoom saafara ñu leen ko jox en deux jours bu dese maa ngi baaxoo leen Omar sonal nga ma fëtt nga ma sama doom bi ah Mouhamed tey laa àndal si cadrage bi euh, ànd ak nag ñax ba nga ñooy Mara ak Mati rek di daal di amal liggéey bu ñu ayib di leen leen joxoon di leen joxoon